sox ñoo ngi leen nuyu. waaw maa ngi leen di fay. Euh, tey jii yaa ngi gis fii ça fait deux ans ngi lii di appel laa yéen di amul à cause du coronavirus 2022 bi mu daal di amaat ngeen ko dund nee ko dundee. bon comme niñ ko daan dundee les années passées rek parce que xam nga Covid bi moom dafa nekk loo xamante ni euh, dafa laal diine ji laal laal laal euh, lieu de travail yëpp la Covid bi laal mais comme yàlla def na tey ñu dellusiwaat ci jàmm ah dañuy jéem a ñaanal rek. yàlla sunu borom mi nga xam ne moom mooy maye moo fi wàcce feebar bi ah ñu jëlee mu jëlee ko fi rek ci darajay Seydina Mohamed ñaan yàlla daal feebar bi dem dem dem dem ba ñu mën a delluwaat ci sunuy activité normal waaw. ñu gis ne fu mu toll nii euh, appel bi ñëw na ngeen def fekk si seen seen naataangoom kii di Moussa euh, yéen relation ngeen am. bon moom am nañu relation yu yàgg. yu yu rafet yoo xamante ni mënu fii ba bu buñ koy wax duñ fi jóge parce que euh, mën naa ne depuis 2010 ba tey ñi ngi ci lieu bi ndax ñoo bokk benn association muy Arcos Pikine Leyti Fadi sunu président ñu bokk foofu mais chaque année xëy na activité moo ko mayetu rek mu ñëw foofu mais chaque année day ñëw yëgle appel comédien yëpp wax dëgg yàlla fu waay nekk comédien yi fu waay nekk rek après Kër Moussa Diallo ngay añee fi ngay tam aussi lépp lu mu mën rek yàlla mën déwén lu ko ëpp ci darajey Seydina Mouhamed di ñaanal ñëpp ah képp ku teg tànk ci appel bi rek euh, aajo joo andi rek yal ko yàlla suñu borom faj yéen tam di ñaanal seen suite bu baax yàlla ful ko mu dem ci kanam a kanam Euh, muy lii di jabar euh, ni gisee fu mu toll bon comme ni ko Sénégalais yi gisee rek rôle la booy interpréter rek euh, bu ñu gis ni man maay dund loolu mais nañu gis ne am na yenn nit yuy dund loolu ci dëkk bi léegi ñooy di koy dund ci dëkk bi noonu lañ bëgg a annoncé yenn xale yi ñuy moytu. ak yenn jigéen ñi nga xam ne dañu bëgg ay sëriñ parce que loo gis rek ñaana ci yàlla sunu boroom ndax yàlla moom moo ñu sàkk loolu kese la ah di ñaan yàlla nag daal mu ngi noonu daal waaye dama Sénégal yi comprendre nag <laughs> man ak junior non nañ ma comprendre bu baax xam ne du man mais benn rôle bu may interpréter rek. waaw tàng na trop. ah day na waar de day na waar de. <laughs> mais dernière question ah. mu moo ne moo doon actualité xam ngeen ko euh, kii di Adji Sarr ak Ousmane Sonko ça fait moo ngi nii seen histoire ba si noo koy dundee. bon ni ma koy dundee mooy sénégalais yi nañu dellu si waat seen xel parce que àdduna dara jaru fi dara yàlla rek moo xam su Adji Sarr defee bu Sonko defee yàlla rek moo xam kon ñi ciy wax nañ ci wax lu ñu xam bu ci kenn dem defi naka su dul noonu nañ jël yëpp delloo ko ci loxo yàlla sunu borom di ñaan yàlla rek yàlla indiwaat jàmm fii ci Sénégal ñu bàyyi nag ah bu dee justice mi ngi ci mu def yoonam bu ci justice nekkul tam ñu waxtaan rek ba jàmm am ndax ñun jàmm la ñu xam ci jàmm la ñu juddu ci jàmm la ñuy deewee te ci la ñuy yaru kon nañu ñaan yàlla rek yàlla indiwaat jàmm fii Sénégal parce que ñun loolu la ñu xam ñun jàmm la ñu xam Sénégal ngay dugg kër midi fekk boolu añ di tege nga bokk ñoom añ mais boo génnee Sénégal amu fi kon ñun loolu la ñu am ñu xëcc loolu na nañuy ñaan yàlla toujours rek yàlla indi jàmm. mais en tant que femme ni nekk mois de mars euh, nga gis aji Sarr kon mu génn naan moom sax fu mu toll nii pour mu génn sax c'est tout un problème amatul sax lu mu jëndee culotte ak tant que jigéen boo déggee kàddu yooyu mu lay def. waaw mais xam nga tam jigéen yow yaay valoriser sa bopp jigéen amul lu may boppam huit mars budul 8 mars yëpp moo ci yem jigéen sa honneur nga am. gardeel sa bopp gardeel sa dignité gis nga sa dignité bu jógee ci yow rek dara def sa desatul ci yow te gis nga li gis góor mën na lal fee ba san mais jigéen mënu ko jigéen mënu ko kon ñun ñi nga xamante ñun ñooy jigéen nañu garder suñu honneur ñu am suñu fulla sunu fayda yi nga xamante ni moom la suñu yaay yaree yi nga xam ne moom la ñu suñu maam yi yaree ñu xam loolu mais tam aussi boo jëlee sa bopp aussi tam def naka sudu noonu kooku tam aussi bu problème yu ñëwee yow conséquence yow yaa koy suivre rek vraiment jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup au revoir allez ciao